képp kuy fan su Modou ba bësal j'aime te video bi képp ko def deux mille vingt 2024 bi yàlla nga bokk si ñuy gën a riis yàlla nga bokk si ñuy gën a am wér mbokk yi combat Modou Lo ak Boy Niang ni ki tey woon yàgg nañ ko xaar ay at neexul ba neexoon nag mais fi mu toll nii na ñëpp d'accord xam nañ ne Modou mooy borom pikin daan na Eumeu seen ñaari yoon daan Ama balde daan ki nga xamante ne moo di Boy Niang mbokk yi ku nangul yàlla dogal doo sonn sa xol du jeex Modou Lo jamono bi suñu borom daf koo may lu jëm ci wàllum làmb muy diriger di def lu ko neex mbokk yi du cadre de far wala du cadre de nangam mais Modou ci côté xeex amul kenn koo xamante ne mën na ko booy Niang jàpp na tànk mais instant boobu mënut si dara instant boobu kaawoo na instant boobu jaaxle na lenn rek la gisoon mooy combat bi jeex Modou ki koy daan góose lay doon bu yoboo ngeen jàpp sama wax ji bu baax a baax li nekk ci Balla Gaye nekkul ci beneen mbër Balla yàlla moo ko may fit mu jàkkaarloo moo duloo di xeex ak moom mais tey ji buñ bëri waatoon sax Modou Lo day daan Balla ndax li nekkoon ci Balla Gaye nekkatu fa te combat bii confirmé na ko mbëri léegi amul kenn ku ci dugg dem si suuf si léegi saane la ñu nekk di yëkkati ay musique te loolu noonu du làmb réel réalité boobu nag la Modou Lo xam ba léegi nii mbër bu mu séexal làmb nga xamante ne carrément kii mooy mbër mbër yi nag leen rek laa leen di conseillé mooy nañu gën a concentré wu ci lan ci ci ci côté suuf bi nañuy dem si suuf di entraîner mais ay dugg saal dem États-Unis loolu dara lii làmb moom mooy lii la réalité wax dëkk bi yëngu ngi yëngu Modou nag nañ nangu ni moom la suñu borom teg mu yëngal làmb ji moom la fi suñu borom teg muy neexal làmb ji saay bu bëree nga xamante ne carrément kii mu ngi bëree saay bu bëree nga xamante ne carrément làmb ji tey neex na làmb amoon na samedi passé ñëpp daan nañ ko seetaan mais bu tey bi loo ko gars yi gën a seetaan mbokk yi maa ngi jéggalu si kàddu yi bu dee wax nañ fi lenn luy déranger mbokk yi mbokk ñu ngi ñaan ngeen gën a jàpp bu baax a baax baax Modou Lo ko xam ne suñu borom moo ko daal di fal te lépp lu mu wax ñi daal di koy gis mbokk yi jégaluwaat bu baax a baax a baax jaa ngeen jëf.